allahu akbar laa ilaaha illallah di couleur yu bari la wallaay day LGBT góor jigéen ñi dara boo góor jigéen ñi la. alquran. ci kaamilu alquran. kon dem ca jàkka ja di ko fa def. kon dem ca jàkka ja di ko fa def. ak ak def ko ci kaamil. ak jël ko def ko ci kaamil. bu ci gën a ñoom ñaar ban moo ci gën a bon. kii de kaamil la. ba ci yàgg ma ne xale yi kii de kaamil la. yóbbul leen ma ko ci bibliothèque bi. yóbbul leen ma ko ci bibliothèque bi. bi xale yi demee ubbi ko. bi xale yi demee ubbi ko. ñëw wax ma ko. ñëw wax ma ko. ma ne man de def naa njaaxum. ma ne man de def naa njaaxum. waaye waa ji daal dafa profité. waaye waa ji daal dafa profité. jox ma ko. jox ma ko tàllal ma loxo. tàllal ma loxo. ma ñaan. ma ñaan mu dem mu dem waaye bu ma ko yëgoon. waaye nee na su ma ko yëgoon. fii dañ koy dumaa. fii dañ koy dumaa.